rajim bismillahi rahmaani rahim kon xam naa rek bala ñoo tàmbali dara ñu déglu leen ci téere suñu borom bu tedd bi ki ñu koy jàngal di maam Abdou ñu bokk ko déglu soo ko tàmbali conférence bi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث خاسئا وجوه يومئذ قاسية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم
jazakumullahu xayran aouzu billahi min alcheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi farada alsalata ala almuminin wa jacalaha nahiyatan an alfaxshai walmunkar wassalatu wassalamu ala imami almusallin wa ala alihi wa saxbihi alsajidin alrakicin wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yu tedd yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci bis bi tey nag ñu am mbégte lool ci toog fii mbégte moo xam ne lu bari moo ko sabab bokk na ci ay jeunes yi nga xam ne ñu ngi bokk ci AMS organiser lu mel nii mu mel ni loolu day wane ne fàttewuñu seen diine ndax diine ji moom rek la ñu am ku fi bàyyi ko itam ci diine ji lañ lay sange ci lañ lay jullee ci lañ lay ñaanal kon nag lu ñuy dund ñu war koo fonk jamono demoon na ba nga xam ne dañ koo bàyyi woon ak mag ñi waaye fi mu nekk nii nag képp ku conscient xam nga ne dangaa war a fonk loolu bi ngay dund kon mouvement bi di AMS comprendre na loolu ba tax mu organiser journée bu mel nii ñu ñaan yàlla na yu mel nii di bari di sant ko nuyu kilifa yu yi fi teew yëpp ak mag ñëpp Serigne Camara Baye Manda ak sëñ Cheikh Ndiaye ak imam Souleymane Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar ak ñëpp ñi fi teew ndax guddi na ba noppi te buñ bëggee tudd ñëpp xëy na dana ñu fi yàgg wala waxtu wi du ko mate. di sant itam maam Abdou mi nga xam ne moo jàng.
bul fàtte imam Saari ñëwoon na.
waaw ay tedd yooyu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla def mu mokkal ak jàmm. te itam mu jariñ ko jariñ ay mbokkam jariñ réew mi jariñ bépp du ma wax jullit waaye nit kuy dund ci àddina te yàlla barkeel ko di nuyu itam sëriñ Adama Bey mi nga xam ne moom moo yore wàllu formation ci AMS ci gox bi ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu tam imam Muniru Saadi nga xam ne ñëwoon na fi su ko defee du ñu guddal dañuy daal di jox ki nga xam ne mooy suñu conférencier mu waxal ñu ci thème bu am solo muy julli julli nag ginnaaw ñaari baati seede yi ginnaaw bi nga gëmee yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem ponki lislaam yi des julli moo ko ëpp importance loolu moo taxoon suñ borom bi ñu koy farataal joxu ko jibril rek mu ñëw waaye dañu ko boo demee nag ma wal yonent bi ngeen ànd ñëw loolu nag day tekki fi mu teg julli nga xam ne joxu ko jibril rek comme ni mu ko joxe asaka nga nga mu ñëw ci moom waaye daa fonk loolu moo tax mu woolu ko bu yonent bi salaa salaam wax ne nit ki bu fi jógee julli la ñuy njëkk a seet ci ay mbiram su jagee rek lépp jag su jagut nag moom dara du jag loolu day teg ci beneen côté nekkoon julli mooy visa ci benn misaal ci ñuy tukki bu visa bi baaxee ñu bàyyi la nga dugg su baaxut dee su la bàyyi nga dugg kon lu am solo la ki ñu koy defal itam nekk koo xam ni kilifa bu màgg la boroom xam-xam la li koy tegtale moo di jàngalekat la directeur école la comme ni ngeen ko gisee moom mooy directeur école bu ñu tuddee Aliyu ibnu Abi Talib waaye amaat beneen casquette casquette boo xam ne casquette bu imaama la imaam la waaye itam nekkaat ak traducteur donc ay casquettes yu baree bari la boole loolu nag li muy tekki kon bu dee tekki dara mooy culture bu yaatu boo xam ne am na ko kon yaakaar naa buñ ko dégloo dinañu mën a jariñu bu baax mi ngi xam ne itam ci kàddu yi ñu tiim que ni boo duggee ci www point al afia point net duñ fa fekk conférence bi ak mboolem conférence yoo xamante ni nii def na ko kon ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla defal tawféex yombalal ko liggéey bi tijji ab dënnam ba lim ñu bëgg a jariñ ci julli yépp mu jariñ ñu ko bi jaahi rasulil karim li jib ci kàddu yi ñu sante ko yàlla li ci dëng ngeen xam ne matatik doomu aadama la ngeen jéggal ñu ko wasalaamaaleykum ñu jox ko sëriñ bi kon mu tàmm bi ñu dem incha allah
بارك الله فيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقي ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di ci jiital sunu kilifa gu mag gi nekk sunu wet muy imaamu dëkk bi ñi ngi jël sunu nuyoo di ko teg ci loxoom ak sunu ziyaar di nuyu waa dëkk bi yépp di leen ziyaar di am kontante ñoo fekk fi sunu mag sunu kilifa imam cheikh nga xam ne bokk na ci ñi ñu yar ci jamono bu yàgg wax dëgg yàlla ñoom kontante ñëw tey ziyaare ko moog waa këram waaye dajeeg mbokki jullit yi dafa ak ñoom benn fàttalante ci diine comme ni ko imaam waxe léegi nekkul ni ab borom xam-xam moo ñëw ci dëkk bi pour jàngal waa dëkk bi day nekk benn mbokkum jullit bu ñëw dajeeg ay mbokki jullitam di fàttalante ak ñoom ndax fàttali ku nekk moo koy def am maa xam-xam nag borom xam-xam moo koy joxe te ñoom ñooy borom xam-xam yi ci tomb boo xam ne tomb bu yitteel la comme ni nga ko waxee léegi nga xam ne amoon na jamono suñu gisoon ab xale bu góor wala ab xale bu jigéen buy julli day nekk lu doy waar léeg-léeg sax ci ñàkk dégg diine benn xale bu góor nekk ci quartier bi di dem jàkk léeg nga gis am mag mu doxantu ba ci kilifaam ne ko téel sa doom ji ndax lii muy def nii du yëfu xale ndax jàkk ji gisu fa gisuñu fa benn xale ku dul moom kon nañ nañ ko téye ba ci kanam tolloon nañ foofu ci jamono est-ce que sax tolluñu fa ba léegi te loolu li muy tekki mooy ñàkk a dégg diine diine ji waroon na toll ci ñun foo xam ne li benn borom xam-xam bind ci benn téere téere bu tudd man amaraka bil hijab uxta man amaraka bil hijab ci biir téere ba borom xam-xam bi dafa wax ne nit ñi fi leen àdduna toll mu ko ciy wane di wane ne ni ñu tardelee diine ak ni ñu xeebee diine mu ciy wane rek benn fenêtre bu ndaw benn porox ndoll bu ndaw mu ne kenn ci ñun bu amoon doom bu góoroo la bu jigéen toll ci waxtum njàng njàng ba war a def examen ci classe yu ndaw yi CEP entrée en sixième jour examen jot walla waxtu examen jot xale bi ñu jox ko numéro bi muy defee bi muy examen classe bi muy nekk ban bi muy toog ñu jox ko numéro ba balaa bis bi jot papaam dugal na ko ci oto ba mu xam fi muy defee examen xam na école ba xam na ban classe la jour bi jot baa ji jël ko dugal ko ci oto bi wàcce ko ci buntu école bi jox ko 1000 francs paas ak ndékki da ko boo teelee pare nga ñibbisi ci une heure rek wala deux heures xale bi ñëw ci baay ji baay ji ne ko pare ngeen mu ne waaw baay ji ne ko naka siise yi naka liñ leen jox mbaay jafewul mu ne ah man da jafe la ci man mu ne ko lu tax mu ne ko parce que dama tardé ñaari matière yi ma waroon def ci examen bi mu ne lu tax nga tardé te yóbbu naa la ba ci buntu école bi mu ne bi nga demee damaa xool fa benn benn banc bu fa nekkoon rek ma toog fa di xaar ñu sone ma dugg ndeke nelaw naa kenn yeewu ma boroom xam-xam boobu di laaj doom jooju ku ko jur noo koy def ma leen koy laaj yéen ñii ku jur doom jooju noo koy def kenn du ma tontu dama leen laaj yéen ñii ci baas bi ku jur doom jooju noo koy def amul tontu danga koy duma loolu laa bëggoon dégg bu dee ku mag foofu la ku gën a mag koo xam ne bag la war a def nga jaar ak moom fii moom it mu ñëwaat ne la papa dama taar rek ñetti matière lu tax non dama doon dama wiiri koñ jàdd jàddaar rek ndeke réer naa balaa may ñëw rek fekk 10 heures fekk ñaari ku ñaari matière dem na ku jur grand boobu noo koy def léegi nag boroom xam-xam bi di wane ne bu fekkee ku ndaw ki la ba mu tardé da nga koo duma bu fekkee ki mag ki jar na la nga takku di ko xas ak di ko yedd mu ne ku sa doom tardé ñaari ràkk fajar ci jàkk ji loo koy def ku sa doom tardé ñaari rakk fajar ci jàkk ji julliwul fajar mu daan dem di julli ji ba benn bis mu biddanti julli jiwul lu ko borom kër gi def ndeysaan bu dee ñun duñ ko yëgal sax suñu yaram duñ ko sax yëgal suñu yaram day mel ni dara xewul te xoolal kee bi mu tardé ñaari matière rek te nga bëgg a rey sa bopp daanaka ndomba nga jël fii la ko ba yaram bi bi mu génnee ñëpp xam nañ ne kii dóor nañ ko tey te ku sa doom tardé jàkk kenn du ko def daal dina nekk gàcce chaque jour dama koy wax guddi ak bëccëg dina nekk gàcce laa wax ci ay jullit yu dëkk ci quartier ñu noddu te jàkka ja feesul gàcce la jàkka yi kan moo koy feesal kan moo war a ñëw jàkka julli jullit lan moo tax tey stade yi di fees lamb del fees stade bi day fees del bu doon bu doon sax dañ naan nañ limité billet yi ñu ne dansin yi day fees del lamb bi day fees del imaam ndax sa jàkk day fees imaam yëngal na bopp nee na déedéet ñi dëkk bayaax jullit yi ak ñi dul jullit ñoo ñoo ëpp question laa leen laaj de jullit yi ëpp lu tax jàkk yi duñ fees ay nal muslimun parce que diine bi moo ñu intéressé wul ba léegi diine ji moo ñu ñorul suñu diine ñoroon ni ñu àdduna ñore kon jàkk yëpp day fees benn yahut ci Palestine day wax ak benn julit julit bi naan ko jamono ngi ñëw dina leen rey yeen yahut yi dina leen toroxal ba génne leen biir Palestine ak masjidul aqsa yahut bi ne ko loolu da jotagul loolu de du waxtu yi moom du guddi yi de guddi yi moom yéen jullit ñi moom mënuñu leen mënul mënu leen a toroxal jullit bi ne ko lu tax mu ne ko parce que da ngeen a sori seen diine bu ngeen gëmoon seen diine di julli fajar comme ni ngeen di jullee àjjuma kon de di ngeen ñu toroxal fi mu nekk nii xoolal jullit yi liñ dese ci julli mooy àjjuma jumaa yëpp day fees loolu ñëpp d'accord nañ ci biir Sénégal ajjuma jumaa ji day fees ba ci biti bu fekkee sax jar nañu baare mbedd mi ñu yenn saa yi nga dekk Dakar ñu baare tali yi oto yi buñ ñëwee dañuy taxaw bisu bisu ajjuma lu tax fajar gi du mel noonu ñi julli soon ajjuma ay malaaka la ñu wàccoon jóge ci asamaan wala ci biir suuf lañ génne woon dama laaj de question laa laaj ma ni ajjuma ñi ko feesaloon bañ baare tali bi ay malaaka lañ wala ay jinne lañ yu jóge woon kaw asamaan wala génne ci biir géej gi wala ci biir suuf si bal ci biir kër yi lañ génne woon ay jullit lañ waaye seen conscience moo leen moo leen déene ajjuma daal mun nañoo dem jàkk amma yeneen bis yi mënuñu julli ji mbokk yi julli mooy ñaareelu kenn comme ni ko imaam waxee ci kenoy islaam l'islam juróomi ponk la maanaam juróomi keno la gis ngeen baas bi tiim nu dafa am ay keno yu ko yëkkati ba mun noo tiim mën noo keral loo ci dégg tey baas bi bu amul woon ay keno ndax dinañ ko mën a jëriñoo tontu bi mooy déedéet kon kenoy islam juróomi keno la ginnaaw seede na yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni ñaareelu keno mooy julli assalaa julli mujjantelu ndénkaane yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci xeet wi keroog ba mu feebaree nekk ci sukuraat tëdd ci néegu yaayu Aïcha jël boppam njaganaayoo tànk yaayu Aïcha bokk na ci ndénkaane yonent bi doon dénkaane keroog ci feebaram boobu ci sukuraat boobu mu génne àdduna mi ngi wax assalaa wa ma malakat aymaanukum ba kenn déggatul gémmiñ ngi di wax loolu yonent bi mujjee dénkaane aaxir wasiya mujjantalu ndénkaane yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy julli mu nekk ñaareelu keno ci kenoy lislaam waaye wa hiya imaadu diin julli moo keno diine bu ñu buggee xam julli nan la toll ci lislaam dañuy jël benn misaal bu ndaw est-ce que nit bu amul tànk mën na dund wala day du dund ay question la dama sama waa laajee rek tontu leen nit mën na dund sans am tànk wala ah nit mën na dund sans am loxo wala nit mën na dund te du gis wala ñàkki bët wala nit mën na dund te du dégg ah est-ce que nit mën na dund te du am bopp nit mën na dund te du am bopp muy dox ni te bopp bi nekku fi mën na nekk xanaa ñu ni bayaax lañ am ñiy dox te amuñu bopp loolu mënul nekk loolu mooy julli julli buñ ko dindee ci diine rek mooy nit kuy dox te amul bopp te loolu est-ce que dina doxati mooy néew moo fa nekk muy diine amatu fi nit ku amul bopp mooy diine ju amul julli diine ji buñ ci dindee julli rek diine amatu fa loolu mooy imaad mooy keno julli moo yanu diine ji moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man aqaamaha faqad aqaama diin ku ko taxawal moom julli samp nga diine mu ne ku ko bàyyi màbb nga diine beneen bi mooy julli mbokk yi mooy nuurul yaqiin leer gi nga xam ne mooy tax nit di yëg yàlla mooy julli soo bëggee yàlla wax ak yow dangay jàng alxuraan soo bëggee yow wax ak yàlla dangay julli da ngeen wax bi saa yi ku xëyati ci ñun bëgg yàlla wax ak moom mu dégg waxu yàlla mu dugg ci noppam yi dem ci xolam na ubbi alquran jàng yàlla wax ak moom soo bëggee wax ak yàlla nag yow nga déeyoog moom jullil du benn de kee moo wax ak yow yow yow yaa wax ak moom kon julli mooy buum gi nga xam ne moom la yàlla yeewee diggante nit ki ak moom buum gi mooy julli julli mooy yeew nit muy jàkkaarloog boroomam direct amul intermédiaire moo tax boroom xam-xam yi di wax ne nit bu taxawee li jàpp lal si yaadaam bay liqaam ba pare su yëkkatee loxo yi ci kaw mooy waddal naa lépp yàlla allahu akbar yow rek laa jublu yow rek yaa màgg gis nga wax loolu baat boobu sax ngay wax yàlla rek moo màgg amatul leneen njaboot gaa ngi ni bàyyi leen waaye yaay Aïcha day nettali nee na yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam su nekk ak ñun di waxtaan su julli jotee day mel ne xamatuñu su julli jotee day mel ne xamatuñu mbokk yi julli mooy leer mooy buum gi nit di yége yàlla imaam ali radiyallahu anhu wa ardaahu su demoon jihaad ñu jam ko su ñëwee pour ñu faj ko dañuy bàyyi ba muy julli su ne allahu akbar rek gaa yi daw ci yaram bi faj dagg-dagg yi fi ñu dóor jaas fi ñu jam xeej fi ñu ko fet su paree mu gis ndeysaan niñ ko fajee mu doog a yëg ne dañ ko doon faj loolu mooy julli julli mbokk yi mawqiful ubudiya والعباد لله رب العالمين يقول جل وعلا في محكم التنزيل فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا julli mooy taxaw bi nit di taxaw ci kanam yàlla nangu nekk jaam kañ la nit ki di nangu nekk jaam ci kanamu yàlla mooy bi nga nangoo julli nga ne ko nekk jaam lan mooy jaam baatu jaam est-ce que xam nañ ko tey Sénégal koo ne jaam nga mu ne bu ma ko waxati wala su kenn ñëwoon fëgg sa buntu kër xam nga nit bu faatoo ñu teg ko ci kanam jàkk ji imaam di ko jullee imaam danaan kii jaam la doomu jaam la doomu jaam la kii jaam la baayam jaam la yaayam jaam la ñëpp ne mhm mhm ñenn sax dañu naan amin amin ci ginnaaw allahumma innahu abduk wabnu abdik wabnu amatik mais bu fekkoon ne waa ji mi ngi dund mu ne këng këng buntu kër gi mu ubbi mu ne ko yow jaam la sa baay jaam la sa yaay jaam la kooku nu muy def daan ko xaar ma ñëw dem jëli kuur bu ko fekkaatee foofu rek du baax wala lu tax léegi nii waa ji fi mu tëdd ñu wax ko ko ñëpp na mhm mhm lu tax gis na tey ñëpp nangu nañ ko pourtant nag niñ ko nangoo fii doon lañ ko war a nangoo fee ñun ñëpp ay jaam lañ waaye jaamu kañ lan jaamu yàlla gis nga yonent bi baat boobu moo ko gën a neex ci baat mooy jaam mu nekk jaamu yàlla moo tax place yëpp importance ci alquran bi yàlla di woo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lan la ko wax abd tabaraka alladi nazala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qaama abdullah araayta allazi yanha abdan subhana allazi asra bi abdihi moo tax mu ne laa tatruni kama atrati nasara isa bnu mariam bu leen ma jay comme chrétiens yi ni ñuy jayee jésus jésus ne ko doomu yàlla man bu leen ma jay de xam nga nit ñi dañoo mën a jayee yonte ne bu leen ma jay innama ana abd fa quulu abdullahi wa rasulu man jaam laa wax leen jaamu yàlla yonenti yàlla bu ma kenn jay man yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon julli su ko nit di taxawal na yëg ne nangu na nekk jaamu yàlla nangu na nekk jaam boo xam ne yàlla mooy boroomam nangu na nekk jaam buy jaamu yàlla di ko sujjóotal di ko bàkk di ko kañ di ko rukkóol moom yàlla mi nga xam ne mooy rabbul alamin mooy borom mbindeef yi saa yi julli taxawee di julli na yëg ne moom nangu na li ko yàlla teg borom bi ne na ngeen taxawal julli léeg-léeg ba dégg ku ne nañ ko dóor mu daanu waay nañ ko dóor mu daanu lan la ñuy dóor mu daanu mooy julli misaal naa fi la jot weeru koor xam nga nit ki bu ndogoo wala ndogu jotagul ñu ngi julli gee da ngay dégg gars yi ne nañ leen dem dóor ko mu daanu waaye ñëw ndogu lan la ñuy dem dóor ji mu daanu mooy naafila bi loo xam ne yàlla dane taxawal leen ko fa aqiimu taxawal aqiim baatu iqaam mooy lan gis nga julli bu jotee da ngay dégg ñu ne aqiimi salaat taxawal julli maanaam julli yàlla dane nañ ko taxawal ñun ñu ne dañ koy dóor mu daanu moo tax gis nga julli yi julli gi ñuy julli léegi nii duñ ci jëlee njëriñ bu bëri parce que julli wuñu dañuy julli mais julli gi amul leer amul xusu amul yaqiin amul lenn looy yëg cafka ci julli gi laxdari day wax ne lissalaati nuurun azim tasruqu fi qulubi lmusallin mu ne lan yanaaluhu illal xaashiin laxdari bi ndaw bi ñu jàngi Sénégal ñun ñëpp loolu la ñu wax nee na julli dafa am leer gu rëy gu màgg goo xam ne day fenk ci xolu jullikat yi waaye kenn du ko ñem nag kenn du ko am lu dul ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu alquran ne qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim alladina hum fi salatihim xaashiun yàlla nee na julli ñi koy def texe nañ ñu ne yàlla ñan mu ne ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam bu daan julli dañuy dégg dënn bi di baax mel ni cin ñu dégg dënn bi di yiixat di xiixat azizun ka azizil mirjal min al buka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu la daan jullee ñun bu ñuy julli tey da ngay gis ku ne allahu akbar Mm, mhm, mm. Mm. wala la du ngeen ko gis wala di kënkëni kën wala lan la wala allahu akbar di xool montre bi allahu akbar am na ñoo xam ne léegi bu bu bu combat amee dañuy takk écouteur portable yi dem dem dem jàkka de allahu akbar fa ne dégg am na koo xam ne saan dafa takk écouteur portable toog ci ci ci ci jumaa bi ñu yëkkati mu gën mbërëm rek nga gis mu ne nii rapporteur bi ne yëkkati nañ ko mu ne rek moom fi mu toog mu ne du jóg de du jóg du jóg te mu ngi ci jumaa ji nga xam ne léegi fi ñu nekk fitna lañ nekk am na koo xam ne fi mu toog di taaya taaya taaya ba war a sëlmal daan ne xalaas wala mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne xalaas xoolal nit ñi fu ñu toll. julli goo xam ne bi nga koy julli yëgoo dara te yàlla nee na inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquut julli ci jullit benn rendez-vous la boo xam ne dañ koo utal heure dañ ko fixé heure nekkul heure bu la neex nga jóg julli da ngay gis tey boroom kër guy julli fajar huit heures huit heures jumaa ji may jiite gars yi mun nañoo respecter heure yëpp ba mu des dimanche matin fajar comme tey ok imaam bu bilaal bu ñëwee imaam ñetti nit ana ñeneen ñi dañuy grâce quoi grâce matinée dimanche matin duñ dem jàkk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi julli moo tax ñu tuddee jullit jullit kii jullit la lu tax ñu wax ko lan moo tax ñu am fit ne kii jullit la lu tax dañ koo gis muy julli walla baat bi sax lañ ko tuddee kon est-ce que ñeme ngaa nekk jullit ba ñu julli kon na nga fexe yow moom di julli fexeel nga def ko ak charte yiñ la ko sante ak niñ la ko sante waaye fexeel nga defee ko ni ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngale yonent bi keroog bi ko yàlla joxee julli jibril ñëw jàngal ko nu ñuy jullee yonent bi dafa julli ne sahaaba yi sallu kama raaytumuni usalli bal yonent bi yemul woon foofu ci hajjatul wida ma nga naan sahaaba yi xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla bal sax ci suratul ahzab yàlla dafa wax ne falyaxzari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum adabun alim yàlla nee na moytu leen wuuteeg yonent bi ku wuuteeg yonent bi rek dinaa la teg fitna ci àdduna boo dee àllaaxira ma dugal sa kon fexeel comme yàlla nee na la julli dafa am heure fexeel ngay julli ci heure yi inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquut julli dañ ko utal heure julli suba ban heure la julli tisbaar ban heure la julli taakusaan ban heure la julli timis ban heure la julli gee ban heure la fexeel nga xam heure yi fi mu nekk ni ci programme télévision am na film yoo xam ne dëkk bi yëpp xam nañ heure bu muy commencé léeg-léeg sax nga gis nit nekk ci oto naan chauffeur bi gaawal dëng yo yenn saa yi di ko bëgg a rey ngir lan day bëgg a tardé film bi wala day bëgg a tardé làmb ji mu ngi commencé heure bi jot na te julli bu jotee doo mel noonu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xoolal nit fonk bëri ba dugg oto war a jógee Dakar ñëw bayaax mu xam ne nii oto bi di dawee narul seetaan combat bi muy harcelé apprenti bi di harcelé chauffeur bi te pourtant ndeysaan waxtu julli bi mi ngi paase yëgulu ko yaram sunu benn sëriñ génn na àdduna yal na ko yàlla yërëm dafa nekk ci kaar yu mag benn kaar bu mag kaar bi ci biir Côte d'Ivoire la kaar bi war a jóge ci capitale bi dem beneen ville nee na foofu seen kaar yi kaar yi gudd lay nekk waaye dañ ciy teg télévision di ci teg ay musique nit ñi di seetaan ndax nit ñi bañ a yokkat distance bi ni mu soree nee na mu nekk ci kaar bi kaar bi di daw di daw nit ñi di fecc di yuuxu di cëppi cëppi mu xool montaram gis julli jot na mu ne chauffeur chauffeur bi ne nii mu ne ko julli jot na de laaj ko français ne ko julli jot na nee na chauffeur bi waxul dara continuer chauffeur bi dawaat 10 minutes mu ne ko chauffeur julli jot na nee na chauffeur bi départ rek mu daal di noddu allahu akbar allahu akbar nee na car bi droite nee na bi car bi droite li ko jaaxal mooy car bi ñëpp julli moom la chauffeur bi mu ne ndekk ñëpp jullit lañ mu ne allahu akbar ndekk ñi nekkoon ci car bi ñëpp jullit lañ chauffeur bi doon moomul julli mu ne waaw kon man bu ma noppi woon tey waxtu yëpp dañ koy leb ba saa yu yegg keroog kan moo tax ñoom ñu julli waxtu woowu waa ji kese te xoolal ñëpp jullit lañ te bi mu ne heure bi jot na am na ñu ko doon ciipatu naan di ko di ko di ko muub xoolal ñun dinañ xas chauffeur ndax théâtre baa ngi waaj a commencé mu daw bu baax dinañ xas chauffeur ndax film baa ngi waaj a commencé pour mu daw baax dinañ xas chauffeur ndax laamu baa ngi waaj a commencé mais duñ ko xas mukk julli jot na droite ñu julli moo tax war nañu xoolaat suñu bopp mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yont yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na assalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad xadama diin yonent yàlla Muhammad nee na julli day mooy kenoy lislaam moo ko téye ku ko taxawal taxawal nga diine ku ko bàyyi màbb nga diine kon ku bàyyi julli rek kenn warul tolaa tuddee jullit fa salaatu sila bayna al abdi wa rabbi julli mooy buum gi jokkale diggante jaam ak yàlla portable portable lan moo koy jokkale ak ki muy communiquer ñaar ñuy communiquer lan moo leen jokkaleel ba ñuy déggante waa ji nekk France nga nekk fii ngeen di déggante lu tax portable yi dañoo am réseau portable baa ngi nii bees tàq 200000 lay jar amul réseau est-ce que am na njëriñ amul benn njëriñ mooy jullit bi nga xam ne amul lu ko jokkaleeg yàlla gis nga jàkka jaa ngi nii jege pot lampe bi jàkka ji kañ la kañ la jëriñoo pot lampe bi jàkka ji kañ la jëriñoo pot lampe bi mooy biñ jëlee buum ci pot lampe gi dugal ci biir jàkka ji ah léegi jàkka ji dina jëriñu ci pot lampe bi waaye jàkka ji bu fi nekkoon téeméeri at te jokkul buum jógewul ci pot lampe bi ñëw ci jàkka ji jàkka ji du jëriñoo courant bi du jëriñoo lampe bi mu julli mooy mbokk yi li ñuy jëriñ suñu digganteeg suñu borom xool yonent bi lan la wax aqrabu ma yakunu al abd min salatihi wa huwa sajid amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru fihi du'a yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na su ngeen rukoowee nee na màggal leen seen borom mu ne bu ngeen sujjóotee nag ñaan leen yàlla ndax léegi jege ngeen ko ibnu mubaarak nee na dama daan ñaan di ñaan di ñaan ba ñaan yàlla xorom bi nga xam ne sama soxna daf koy xorome cin bi duma ko bàyyi damay ñaan su ma sujjóotee mu ne lépp laay ñaan dinaa ñaan ba ñaan xorom bu ñuy xorome cin bi boo tax yàlla doon leen ko may ñun nag soo nee subhaana rabbiyal azim ñu ne bëreet bu imaam guddalee ñu ne imaam temps yi dañoo seetlu ne sarak yi dafa gudd il faut ñu wax ak yow yow imaam imaam del tari inna atayna ak wal asri imaam wax dëgg yàlla abasaak lam yakku yi ngay tari vraiment imam da nga indi problème inna lillahi wa inna- ñun tey nangu nañoo yàgg ku nekk ba mu des yàlla misaal laa joxe tey bu ñu président de la république recevoir Abdoulaye Wade ñu toog ci salle bi mu toog ñu jàkkaarloo ñuy wax muy tontu wala ñun ñuy wax muy dégg est ce que kenn ci ñun dina nañ leen dem waaye heure bi jot na damay laaj damay laaj ah waaye xool bu ñuy julli tuuti rek ñu ndeysaan pourtant yàlla nee na bu ngeen ñëwee di julli jege ngeen ma jege ngeen ma waaw jege yàlla ak jege Ablaye Wade lépp njëriñ ah bokkuñ de mais seytaane moo ñu jàpp seytaane ñu jàpp ba bëgguñu yàgg ak yàlla dafa mel ne yàlla dafa am lu mu def nit ñi ba kenn bëggul yàgg ak moom kàbbar yi allahu akbar day gaaw su ilimaan di diibal tuuti sax nga xaaral rek man maa ko def sax ba ma changé jàkka temps yi mu jaral la nga dem beneen jàkk ruko yi bu yàggee tuuti nga am problème am na benn jumaa bu may jiite ci hôpital la nekk benn jour la ñu ñëw ne ma imam fii hôpital la nit ñi dañu feebar sa julli gi dafa yàgg fii ay malade ngay jiite ma ni déet jiite ma malade kay malade kay ñu ngi fële tëdd seeni lal waaye ñi leen indi kay xanaa ñooy ñëw di julli si ñu ne waaw na na na ngay koy gaawal sa julli gi da da ëpp na sax 3 minutes daf ko une minute rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw julli gu gaaw googu léegi lu ñu ciy jële mooy ay yaram yu métti rek ndeysaan dara du saf ci julli gi te julli gi dafa waroon saf loolu olof yi naan la mu saf ka ko macca ko xam soo ko maccul nag doo xam li muy saf loolu mooy wax ji moo tax julli gi fi mu nekk nii da ngay dégg yàlla ci quran mu ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day tere nit def lu bon nga gis waa ji di julli di def lu bon kon julliwul julliwul waa ji bi mu ñëwee ci ndaw si nag dama bëgg njaaloo ak yow waxal loo bëgg ma jox la mu ne ko am na benn jàkk bu nekk fee da ngay dem nga julli fa 40 jours nga ñëw ñu njaaloo man ak yow waa ji bàyyi li muy def lépp dem ci jàkk ji julli fa 40 jours bi 40 jours yi motee dafa fàtte ndaw si ba benn bis waa ji nekk ci mbedd yi di dox rek ndaw si séen ko rek koj ko ne ko hee kii du yow mu ne auzu billahi min ashaytan rajim auzu billahi min ashaytan rajim daal daw jaar beneen mbedd kooku julli bi jëriñ na ko kooku julli bi jëriñ na ko te xoolal ñun tey léeg-léeg nga génn ci jàkka ji sax nga seen portable lu jàmbur nga jël fay dindi pis bi sànni dugal sa poos ah léeg-léeg ay nit nga gis ay séeréer yi ñëw ci jàkk ñu julli ba pare ñu daal di buub daal di jàmbur yi yóbbu te dañ doon julli si kat waa léegi kooku da doon julli si est-ce que kooku lu mu doon def si day na waar mbokk yi su ko defee mu ne fa man hajara salaa wa qaataa rabbu haana alayhi irtikaabu kullu fahish wa xasuna ladayhi kullu munkar képp koo xam ne gàddaay nga sa boroom bàyyi nga julli dootoo déeyoog sa boroom dootoo jokkoog moom mu ne dagg na buum bi dox digganteem ak boroomam nee na kooku lu ko neex day def dootul xalaat dara ci mbon ndeysaan sunu benn sëriñ mu ne képp ku tëdd fajar sa kawlal nga dégg bilaal ne assalaatu xayrun min annawm loolu mooy lan loolu mooy lan mooy julli moo gën nelaw wala du bilaal du yem foofu de ñaari yoon encore assalaatu xayrun min annawm nga dégg ko ñaari yoon mu ne nga bëgg a jóg soxna si daal lay teg loxo ba nga tëdd continue demoo jàkka ja nee na bis a ngi ñëw soxna si dina yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkka ja déggu leen li ma wax de déggu leen ko képp ku sa soxna tere dem fajar jàkk bisa ngi ñëw soxna soosu tere woon la dem dina yuuxu ba ñépp ñoo mun a jël leen yóbbu képp ku sa mbàjj tere dem julli ji fajar jàkk bisa ngi ñëw dinañ la laxas ci mbaaj mi yóbbu jàkk ji mbokk yi jullit jullit du ko fooye jullit jullit du ko fooye jullit du fooye julli pourtant Sénégal dañoo alku rek xataa suñ sëriñ su baax si ñi gi ñi yi ñu bëgg fii gëm leen Cheikh Ahmad Bamba lan lañ koy taggee ah julli xoolal kenn ku nekk ci ñoom fa mu dëkk booy dugg dëkk ba la ngay njëkk a gis ci lan la bokk ah ci julli jumaa ngay njëkk a gis sooroor julli moo tax ñu am li ñu am ñun ñuy foogee julli ñun ñu sàggane julli nga xam ne tey di nga am jabar joo xam ne sax du julli wala yow dong yow yaay julli ci kër gi xale yi duñ julli jigéen ñi duñ julli wala julli koo xam ne ndeysaan allahu akbar léegi gis koo xam ne day julli mbagg yaa ngi ca biti nopp yaa ngi ca biti pooj yaa ngi ca biti yeel yaa ngi ca biti wala balaa muy julli daa di jël kol gu ndaw rek daan ne nii daan ne allah bu pare ne daa ne loolu julli la mbokk yi julli ku ko doyadil rek lépp lu nag ci kanam ginnaaw julli da nga koy doyadil képp ku dagg buum gi dox sa digganteeg yàlla lépp ngay def ci lu bon te lépp lu ñaaw day rafet ci yow dootoo jaamu yàlla mukk wa man ata biha muxlisan lillah faqad faaza bi qurbin min allah képp ku taxawal julli di ko def niñ la ko santee soo jógee di julli nga yëg dafa am koo amal rendez-vous mbokk yi dama leen di laaj di leen laajal di leen laaj ci yàlla kenn ci ñun fii léegi bu portable am soné woon ñu ne ko Ablaye Wade da lay recevoir boo jullee timis ba pare balaa ngay dem nooy def est-ce que nii ngay demee nii nga toogee nii noonu ngay jógee dem kenn ku nekk ci ñun fii même boo sangoon ba pare sol ay yére ñoo ci conférence bi léegi nii toog ñu sa portable soné ñu ne yow la nguur nguur Ablaye Wade di xaar da nga naan xaar la ma dem kër ga defaruwaat dellu di nga ñëw defaru même dina jar saa yenn saa yi nga ni demal ci diw mu alma grand mbuubam bi bu dee tubaab nga nga ni demal diw alma costume bi demal diw alma dàll demal diw alma ceinture bu fekkoon ne dàll yi gën nga koo siire fanweeri at di nga dem ne dañ ko tent siire ko parce que lan da ngay dem ci góor gi waaye yàlla mi nga amal audience rendez-vous nag yàlla nee na xuzu ziinatakum inda kulli masjid bu ngeen dem ci jàkk na ngeen solu ba rafet walla loolu du aaya xuzu fii lu amrin la ziinatakum inda kulli masjid daa ne bu ngeen dem jàkk da ngeen war a solu ba rafet kon booy dajeek yàlla rendez-vous audience waroo mel nu la neex képp ku julli julli ji yaa ngi ko sellal ngir yàlla yaa ngi ko julli ngir yàlla faaza bi qurbin min allah wallahi xam nga looy jële ci julli gi da ngay jege yàlla yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa dem guddi gi mu rañaanee dem aljanna ci peggu aljanna ci wetu aljanna ci wetu kër yonent bi yonent bi dégg fa luy kurkuri di yëngatu di kurkuri mi ngi mel ne tey nga tëdd sa biir néeg ci sa fenêtre bi ci ginnaaw nga dégg lu fay kër kër yi yonent bi dégg kurkur gi mu ne Bilaal mu ne mu ne Jibril waaw lii lan la lan la li may dégg fii muy kurkur yi lan la mu ne ko ñaari tànku Bilaal ñoo fay yëngatu Bilaal ki koy noddal Bilaalul Habashi muazzinu rasul yonent bi daal di jóge kaw asamaan ñëw ci suuf li mu njëkk a def ñëw kër Bilal ne ko Bilal lu tax nga jiituma aljanna ndeke Bilal moo jiitu sax yonent bi aljanna Bilal bi ma sabaqtani bil janna lan nga ma jiitoo aljanna yow Bilal Bilal ne ko ah nan laa la jiitoo mu ne ko damaa dugg sama kër biir aljanna dégg say tànk di kurkuri sama wetu néeg ma laaj Jibril lii lan la mu ne ma say tànk la lan nga def ba jiituma aljanna mu ne ko saa yu ma jàppee njàpp mu tooy dinaa jullil yàlla ñaari rakk saa yu ma jàppee njàpp mu tooy dinaa jullil yàlla ñaari rakk gis ngeen waxul farata yi de maanaam saa yu njàppam yàqoo rek mu dem jàppiwaat rek balaa muy toog julli ñaari rakk ci loolu la duggee aljanna te deewul ndeke nit dina nekk fii ci kaw suuf di dox ndeke mi ngi aljanna lan moo ko may loolu julli allahu akbar mbokk yi ndeke kon julli gi foog ñu sellal ko mbokk yi waaye nit ki saa yu soree julli def lépp lu bon teew na ci kanamam moo tax yàlla ne wa aqimi salaa inna salata tanha anil fahshai wal munkar yow jullit taxawalal julli ndax jullikat day tere nit def lu bon ak lu ñu sib képp ku bëgg a bàyyi lu bon képp ku bëgg a sori lu bon del julli waxuma ngay këpp këppal de dafa am ñoo xam dañuy këpp këppal mais julli wuñ yonent bi nee na sàcc bi gën a bon ci sàcc yi mooy kii sàcc yàlla saxaaba yi ne yonent nit nan lay sàcce yàlla mu ne julli goo xam ne rukkoo yi matut sujjóot yi matut njàng mi baaxut kooku mooy sàcc bi sàcc yàlla yenn saa yi nga dégg ku ne xaaral ma këpp këppal kooku julliwul julli kenn du ko def di këpp këppal ixwaan yi inna salaa fi xaqiqatiha wa hayatiha iqbalun ala allahi taala mbokk yi julli ci dëgg-dëggam ci ay réalitéem ci xaqiqaam ak jëmm ji ko nit ki di defee iqbalun ala allah jublu yàlla tabaraka wa taala la bi taazim wal ijlal والوقوف بين يديه لأداء فريدته تاعة لله تعالى إخوة الإيمان عليكم السلام ورحمة الله julli ak jëmmam ak melokaan bi ko nit ki di defee lan lay tekki mooy iqbaalun ala Allah mooy nit ki dafa bàyyi lépp jublu yàlla bàyyi soxna bàyyi kër bàyyi doom bàyyi alal jublu yàlla moo tax dina ma jaaxal trop nit ñi war a nekk ci di julli portable yi di sonné kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri julli wu ñu kuy julli ji boo nee jëm jàkka ji da ngay fay portable bi da ngay bàyyi lépp iqbaal ala allah da ngay jublu ci yàlla waaye li gën a ruslu sax mooy yenn saa yi am na koo xam ne sax mun na fàtte mais bu portable bi sonné mu génn ko fay mais am na koo xam ne day bàyyi portable di sonné di sonné di sonné di sonné di sonné di sonné su ko defee julli gi yëpp jàkk ci kenn dootul am xusuur ñëpp seen xelan ci portable bi sonné julli boo koy def lax dari daf ñu tere sax ñu yor loo xam ne day kuruj kuruj yi suñu poos nga xam ne boo rukkoowee mu daanu nga jëlaat dugal nga sujjóot mu wadd nga jëlaat dugal moo tax ñu naan même bu fekkee ci jàkka la ñu ne jàkka ji bu ñu def dara ci kanam loo xam ne nit ki dafa loolu da koy tourner mu daal di dellu xelam dellu ci àdduna même kanam même fooy sujjóot même sijaada yi ñuy sujjóot sax waruñu ci def ay dessin waruñu ci def nangam ak nangam ba nga xam ne waa ji bu ne allahu akbar xool naan bii bu verte la bii bu bleu la bii bu xonk la bii bu xelam nekk ci couleur yi si nga yooyu yëpp yooyu yëpp iblis moo koy def nga ni allahu akbar rek xool fi nga war a sujjóot iblis naan la xoolal couleur yu jàkka ji xoolal couleur ziyaada bi rouge bi moo gën a foncé xoolal bleu bi nga nekk fa nag di xooli couleur mës nañ julli ci benn mbooloo ba pare ñu ne ma balaa ngay génn jàkka ji defal benn fàttali ma jël micro jàkka ji wala ci mbooloo moom ñu julle woon ma jël micro bi daan ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam timis lañ doon julli ma ni Elimaan yan saar la jàng ci julli gi wallahi azim kenn xamu ko xam nga lu tax parce que bi ñuy julli gars yi bàyyiwuñu xel ci ilimaan li muy jàng bi ma nee ilimaan te te loolu xoolal ni mu grave nga nekk ci ginnaaw imaam imaam jàng ñaari ràkk timis yi jàng ko ci kaw ba ni assalaamu aleykum ñu pare ñu ne imaam ne ban saar laa doon jàng ñëpp ne xamaguñ xamaguñ kon ana xel yi fu ñu nekkoon bi ñuy julli te tey loolu day am imaam essayé ko essayé ko benn bis rek di nga am problème de lan laa doon jàng lan la imaam doon jàng ñëpp ne teg ah xel yi di daw di wër di wëri aaya yi ba mu yàgg benn waaye ne kenn allah subhanallah mbokk yi bu ngeen neetee allahu akbar seen xel na nekk ci yàlla xam nga seen xel lu muy nekk ci yàlla mooy nga déglu imaam li muy wax alxuraan bi imaam di jàng yow lay waxal li tax léegi nit ñi mënatuñoo changer parce que dañuy dem julli ba pare julli gi duñ ci jëlee dërëm dangay gis ku dem vendredi dem julli ji imaam xutba ba pare julli mu ñëw toog soo ko ne woon waaw tey loo jëlee jumaa bi ah lu ma jële julli nañ ba pare rek loo bëggati ma jële ko fa mbokk yi kuy dem jàkk jàkk place bu ñuy dolleeku la julli jaamu yàlla buy dolli nit la kuy julli te dolleeku woo rek xoolaatal sa bopp est-ce que yaa ngi julli ndax iqbal ala allah da ngay jublu yàlla tabaraka wa taala bi taazim wal ijlal yaa ngi màggal yàlla moo tax yonent bi ne amma ruku fa azimu fihi rabb mais léeg-léeg allahu akbar daa di ruku subhana rabbi al azim subhana rabbi xoola ruku xoola ruku rek azkaar yi ci yonent jàngale subuhun quddusun rabbul malaika wa ruh allahumma laka rakaatu wa laka amant daanaka ruko soo yàkkamtiwulee mën nga faa def une minute bu mat sëkk une minute di jàng ñaan yoo xam ne boo jàng doo jàngaat boobu beneen ngay jàngaat soo demee ci sujud ba mën nga faa def une minute di jàng ñaan yoo xamante ne boo jàngee benn doo jàngaat beneen mais parax parax parax parax xoolal taaya xoolal duaawul istiftah wallahi sunu julli yi duñu jëriñ c'est parce que dañ koy parax paraxee dañ koy parax paraxee xoolal balaa ngay sëlmal azkar yi fa nekk mais xoolal rek julli gi laa la wax fi ngay tàmbalee ba fi ngay yem julli mooy jaamu yàlla goo xam ne fu nekk am nga looy wax am nga looy def fu nekk rek am nga looy wax ci julli mais nee na nga gis ku julli ba pare benn xale bu jigéen mës na ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga jàngal ma julli ndax man mun naa def lépp mais fenn rek laa am problème man ko fan mu ne foofu ñuy yëngalee damay gis nit ñuy yëngal rek may yëngal taaya lay wax taaya mu ne damay damay gis nit ñi di yëngal baaraam rek man tam damay yëngal foofu moom xamu lu ñuy wax damay yëngal rek est-ce que ndaw soosu bëriwul ay morom ci dëkk bi ah ka bëri ñoo xam ne julli xamuñ ci dara dara dara te julli gi jëriñ nit mooy julli gi nga xam ne fu nekk xam nga li ngay wax xam nga li ngay def julli googu mooy jëriñ nit julli googu moo lay jokkaleeg yàlla mais julli goo xam ne kuruj kuruj kuruj kuruj salaamaaleykum waxuma sax nga wax asalaamualeykum soo demee ci lax dari daf lay wax ne asalaamualeykum farata la ci julli farata farata mooy loo xam ne boo ko bàyyee sa julli yàqu léegi boo jullee ba pare nga ni salaamaaleykum sa julli yàqu na parce que waxoo asalaamualeykum gis nga moo tax ku munul ku munul nuyoo ku munul nuyoo ni lislaam mënoo julli ku munul wax assalaamu aleykum mënoo julli parce que boo demee di julli booy sëlmal la nga naan salaamaaleykum te salaamaaleykum baaxul ci lislaam yahudi yi ñoo daan ñëw fekk yonent bi toog ñu ne ko assalaamu aleyka yàlla na nga dee bërëxal ko assalaamu aleyka mooy yàlla na nga dee yonent bi ne leen wa aleykum ak yéen yaay Aysa ne leen ak yéen it yal na ngeen dee yal na ngeen torox yal na yaay Aysa yonent bi ne Aysa ndànk mu ne déggoo liñ la wax mu ne dégg naa ko déggoo man li ma wax man la yàlla di nangul ñoom yàlla du leen nangul léegi nag xoolal nuyoo boobu ñun bu ñu demee ba koy nuyoonte suñu biir nga ñëw fekk ay jullit toog nga leen asalaamaaleykum yal na ngeen dee yéen ñëpp ñu ne la waa asalaamaaleykum yow it yal na nga dee kañ la ñuy am jàmm gis ngeen baat yi may wax nii julli ci Sénégal ju bëri mënuñu baat yi may bëgg a wax astaghfirullah ñu bëri mënuñu lu ñuy wax safrullahi saafurulaay saafurulaay mooy la saafurulaay boo koy wax fii suba ba ngoon doo am tiyaaba saafurulaay waxoo dara laa ilaha illa allah ne laa ilaha illa allah boo koy wax fii ba ngoon amoo dara subhanallah nga dañu ne subhanalaay assalaamu aleykum assalaamu aleykum yenti baat yi Sénégal ñu bëri mënuñu ko waaw Sénégal bu dee 12 millions lañ 11 millions yi mënuñu lii ma wax léegi nag fan la suñu jaamu yàlla di baaxee yow nga war a wax astaghfirullah sa dund yëpp yaa ngi wax astaghfirulaay astaghfirulaay te xam ngeen ni tey jii kenn ci yéen su ma ko joxoon sama numéro téléphone ma dem mu soxla ma di ma woo yàq ci benn lettre est-ce que dinaa ko wuyu dinaa ko wuyu yonte yàlla Moussa dafa gis benn jaamukatu xërëm benn waaye buy jaamu xërëm waaye jaa ngi naan yaa sanam yow sama xërëm yaa sanam làmmiñ bi gaaw noonu muy waxee yaa sanam yaa sanam mu ne yaa samad yàlla ne ko labbayka yaa abdi yow sama jaam wuyu naa la Moussa mu ne yàlla haza mushrik kii bokkaalekat la dafa juum yàlla ne yaa Moussa hal min samadin gayri est-ce que am na ku tudd samad ku dul man Moussa ne déedéet yàlla ne ko maay samad mu ne waaw mu ne waa ji man la woo man ku ma woo ma wuyu ko wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai mata ida daani بشرط إذا دعاني إذا دعاني والله كو يلا يلا ويلا كو يلا يلا ويلا رك خالل نين كو ووي أك فين كو ووي أك وقت وين كو ووي ترمني يلا سري نينا بولا جام نلاجي يو محمد من يلا فان لا نك ndax dama sori wala dama jege nang leen yëgal ne man kuma woo ma wuyu la waaye dafa am charte mooy nañ ma woo yéeféer moo woo yàlla yàlla wuyu ko yéeféer yéeféer woo yàlla yàlla wuyu ko parce que dafa woo yàlla kon jullit bu woowee yàlla lu muy am jullit bu woowee yàlla lan la war a am mbokk yi aleykum salaam mbokk yi julli mooy place bi nit di taxaw di jox di joxe ay farata yuñ ko sant ngir dégg ki ko jox farata bi julli mooy jaamu yàlla bi nga xam ne ki koy def dafa nangu liñ ko sant mu taxaw di ko def ki ko ko sant mu koy defal kon luy kontaan loo ki ki la ko sant la waaye kañ boo ko defee nim la ko santee Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhu wa ardaahu dafa toog ci jàkk ji benn waaye dugg si julli mu ne ko jullil julli woowu waa ji julli mu ne ko jullil julli woowu waa ji ne ko lii laa mën mu ne ko ñaataan ngay julli li mu ne ko ñeent fukki at mu ne ko wallahi boo ci deewoon da ngay dem safara parce que julli woowu allahu akbar jullil julli woowu xoolal ci téere xadiis yi am na muusi usala yonent bi doon jàngal julli dugg ci jàkk ji fekk yonent bi toog mu dóor ñaar rakk tërëg tërëg tërëg tërëg asalaamaaleykum ne ko jullil julli woo mu ne yonent bi man lii laa mën yonent bi ne ko commencé di ko jàngal julli moo tax boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy wax julli dafa am farata am sunna am mustahab ci yooyu yonent doon ko jàngal yooyu lañu indee arkaanu salaat tey mënut a ñàkk ci julli boo taxawee dangaa war a taxaw ba ku la seen xam ne taxaw nga soo rukoowee nanga fa taxaw na nga rukkoo ba ku la seen xam ne waaye taf-taf xaaral ma taf-tafee julli gi léeg-léeg ku ne xaaral ma taf-tafee ko xaaral ma dóor ko mu daanu xaaral ma këpp këppal boo ñëwee ci xale yu góor yi ñu ne xaaral ma taf-tafee ko boo ñëwee ci maire yi ñu ne xaaral ma këpp këppal kañ la julli gi di baax kañ la ñuy julli julli gu baax mbokk yi mata ixwaan yi julli boo ko boolee moom lépp am nay wax am na fooy màggal yàlla am na foo koy bàkk am na foo koy sàbbaal am na fooy toroxlu am na foo koy ñaan lii mooy julli lii yëpp boo ko boolee am na foo yegg da ngay bàkk yàlla di ko kañ am na foo yegg da nga koy ñaan moom yàlla am na foo yegg da nga koy sàbbaal moom yàlla bu julli gi jeex lii lépp nag yow bu dee doo ko def bàkkaw kañoo ko sàbbaaloo ko ñaanoo ko mooy da nga ne allahu akbar rek allahu akbar allahu akbar allahu akbar pa rek salaamaaleykum julli googu loo ciy jële est-ce que julli nga te kenn amul lay nag ci ñun kenn amul lay kenn amul lay man de damaa jàngul portable bi xew barki démb ñëpp mën nañ koo manipuler ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku jàng ku jàngul ñëpp xam nañ ni nga def ba mën a manipuler portable bi xam lépp di bind message xam message yi fan la xam bul tuf bi fu mu nekk xam nooy envoyé lu tax defoo noonu ci julli lu tax fexee ba nga mokkal ko ba nga xam julli gi lépp lu tax suñu mbiru àdduna yëpp mën nañ ko tey appareil bu ñu la may lu mu garaaw garaaw une semaine nga ciy def maîtriser appareil bi tem sax nga mun cee def lu li nga xam ne ñoo ko créé woon mënuñu ko amma julli amma jaamu yàlla ñu sàggane ko mbokk yi fallahu subhanahu wa taala ganiyun an ibadatina wa laysa lahu xaaja fi salawatina wala fi gayriha min al ibadat walakinahu yuhibbu an yaraana qaa'imiina bi xaqihi raakiciina saajidiina xaashiciina caabidiina lahu bi ixlaasin wa xushuucin wa tadarru yàlla gis nga jaamu yàlla gi ñuy def li ñuy wax nii ku ñàkk xel dina ne ah kon ñun xëy na jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla day tax nguuru yàlla gi yàgg fi wala moo tax yàlla nekk yàlla déedéet sunu jaamu yàlla yi ñuy def yëpp julli yeeg koor yeeg azaka yeeg aj màkka yeeg jàng alquran sabbal jëriñul yàlla tus yokku ko dërëm wàññiwu ko dara yàlla nee na asamaan ak suuf jinne yeeg malaaka yeeg nit ñi bu ñu àndoon di ma jaamu ñoom ñëpp du ma yokku tus bu ñu àndoon di ma moy du ma wàññi dara ganiyun anil alamin yàlla ku doy lu mbindee fii waaye in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen defee lu baax seen bopp ngeen ko defal yàlla dafa bëgg rek ginnaaw ba nga ne man jaamam laa mu ne defal ma nangam mu gis ngay def loolu mu la sant loolu dong moom moom la ci bëgg mais yow boo julliwulee bul yaakaar na yàlla gouvernement am day daanu de man de du ma julli tey ndax asmaan bi daanu te ndax sa bopp tey du ma woor ndax weer wi fay ndax jant bi du tàkk suba mani kaw suuf ñaar dong ñoo fi dul jaamu yàlla mooy nit ak jinni garab yi sax dañuy sàbbaal yàlla wa in min shay wa in min shay illa yusabbihu bihamdi waaye yéen laa tafqahuna tasbih gis ngeen garab gi ngeen gis mu yëngatu mi ngi jaamu yàlla tabaraka wa taala baas bi tiim ni mu ngi jaamu yàlla tabax bi taxaw mi ngi jaamu yàlla kon yàlla bu ko nit ak jinne jaamul tus la ko dul wàññi moom yàlla tabaraka wa taala sunu julli yi ñuy julli jaamu yàlla gi jaamu tokkul yàlla dara waaye yàlla dafa bëgg gis ay jaamam yi nangu nekk jaam qaa'imina bi xaqi ñu taxaw ci àqam moom yàlla bi ñu sant di rukoo di sujoot di toroxlu di ko jaamu sellal moom yàlla tabaraka wa taala kama yuhibbu an yasma'na zakirina lahu wa mustaghfirina iyahu raji'ina rahmata wa in'ami naka noonu la yàlla bëggee ñu koy sàbbaal di ko tudd di ko bàkk nit toog tëdd ba guddi jóg dugg ci ndox mu sedd mi lal si jaadaam jàkkaarloog yàlla di rukoo di sujjóot di ko bàkk di ko kañ di naafila ba sonn sëlmal toog di sàbbal yàlla moo tax yàlla bi muy tagg saxaaba yi gis ngeen allahu akbar yàlla bi muy tàgg nit ñu baax ñi ci quran lan la yàlla wax kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun wa bil ashaari hum yastaghfiruun yàlla mu ne nit ñu baax ñi guddi daawuñu nelaw tuuti la ñuy nelaw bu ñu tëddee dix heures et demi trois heures dina leen fekk ñu yeewu quatre heures di jaamu yàlla ñun ki gën a baax bu jógee fajar gee bu jógee gee ci jàkk ji kañ lay yeewaat asalaatu xayru minal nawmi ñëw def ñaar ñaar rakk fajar julli suba dem ñibbi tëddiwaat ñee dañuy fanaane julli bu bët set bu ñu jullee ba pare dañuy toog di sàbbaal yàlla tabaraka wa taala ba pare ñu bëgg a tolloog ñooñu mënul ne ñun mënuñu buuxantee ñoom bilaal ñoom ammaar bunti aljanna mënul nekk yàlla bu muy tagg ibaadu rahman jaamam yu sell yooyu ci quran lan la leen tagge yàlla ba- yan aaya la yàlla wax ci ñoom yàlla mu ne ñoom daaw ñu nelaw guddi guddi gi yëpp dañ koy jaamu yàlla ba mu jeex am na benn jigéen boo xam ne ndeysaan dañ ko jaayoon mu nekk jaam mu dem kër giñ ko jënd ñooñu dañuy nelaw bañ ne asalaatu xayru minan nawm ñu jóg julli suba mu daal di dellu ci sang bi ko jaayoon ne ko jaayoo ma ay jullit mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko ñooñu xamuñ ci julli lu dul julli farata te man fii damaa tàmm di julli 4 heures ba 6 heures jot ma doog a julli fajar ñee nga ma jaay du ñuy julli kooku daal di woo ñooñu delloo leen xaalis bi daal di goreel ndaw si ndaw si dem yoon wala jigéen ñun ak a bëri ay jigéen yu may woo téléphone naan ma sama jëkkër du julli wallahi sama borom kër du dem jàkk sama jëkkër du julli wala bala muy julli suba 10 heures suba jot ku sa ku dul ku dul yow fajar julli est-ce que say doom dinañ julli jigéen ju dul julli bi nga amagulee jëkkër ba ba ngay am jëkkër ba ngay ëmb ba ba ngay am doom est-ce que doom jooju dina julli du julli abadan mbokk yi ci maanaa bii kaanati salaa bahja wa surur li ruuhi rasul alayhi salatu wassalam fi jamii al awqat kama qaal ju'ilat qurratu ayni fi salaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na looloo tax julli nekkoon mbégte ci moom julli nekkoon luy dundal ruuxam moom yonent julli day dundal ruu comme lekk ni muy dundale yaram noonu la julli di dundale ruu gis nga nit ku gëj a lekk gëj a naan soo ko gisee lan moo la koy wan da ngay gis mu commencé wow koŋ jeex tàkk soo ko nee lan la nga gis mu commencé di la wax li tax noonu nga gis lekk ñàkk a lekk ñàkk a naan jeexitale ci yaramu waa ji noonu la ñàkk a julli di jeexitale ci ruuhu jullit loolu moo tax tey dëkk bi yépp seen ruu yi maral parce que julli yi jaamu yàlla yi moo baaxul moo sellu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ruu da daan dundal julli da daan dundal ruuwam bal sax julli da ko doon kontaan loo ñaata yoon la doon wax bilaal yaa bilaal arix naa bisala noppal ñu ci julli arix naa bisala noppal ñu ci julli ñun bu ñu sonnee lan moo ñuy noppal dem tëdd dugg sa biir ne daan ne sa soxna bu ma kenn yee bu ku fi ñëw nekkuma fi fay sa portable daan ne ko dégageel xale yi ci biir kër gi damay noppalu yonte bi bu sonnoon day julli ñun bu ñu sonnee dañuy tëdd waa jooju sax nga xam ne dafa sonn tëdd day leb waxtu yi tisbaar takkusaan timis gee yeew ñu tàngale ko ndox mu sangu dugg saalam commencé fay lan moo tax dama sonnoon quoi dama sonnoon parce que bon dama jóge long voyage bon est-ce que ñun ak ñii benn lañ kii bu sonnee day julli pour noppalu kii bu sonnee day nelaw ñoom ñaar benn lañ duñ benn abadan ñaar ñi mun nañoo toll mun ñoo yem moo tax yonent bi saa salaam mu ne juilat qurratu ayni fi salaa yàlla def na li may kontaan loo man yonent bi mooy ci julli la ko def balaa may kontaan rek may julli lu tax su may julli damay déeyoog sama borom wa kaana aadatul munafiqin an yatazaharu bisala maa almusallin fi kulli mawtin gis ngeen yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bokk na ci aaday naafiq yi dañ daan feeñal julli di ànd ak ñuy julli ci bépp place ci bépp barab boo xam ne yonent bi dajale na leen fi waaye ñàkk gi ñu ñàkk gëm ne julli day jëriñ di ko def nii rek ay geste ci kaw mais xol yi eggu fa moo tax julli jëriñu leen waaye yonent bi saa salaam balaa muy génn àdduna liste la def liste ba mu fees dal mu woo Huzayfatul Yamaani ba mu ñëw mu ne ko ñii ñëpp ay jullit lañ waaye ay naafeq lañ ñii ñëpp allahu akbar pour ngeen yëg ne naafeq dafa garaaw te kenn mun koo xàmmee day julli di woor di jàng alquran di zikr Omar danaan bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd ba loolu olof yi naan suuf sedd Omar daa di waaxu ndànk ñëw buntu kër Huzayfa daa di fëgg ndànk kuŋ kuŋ kuŋ pour du déranger nit ñi Huzayfa ne koo kan la mu ne ko amirul mu'minin Huzayfa daw ñëw ubbi buntu bi ne ko amir lu lu la yëkkati heure bi mu ne ko liste bi la yonent bi jox maa sama tur nekku ci Umar Umar allahu akbar Umar Huzayfa liste bi maa sama tur nekku ci mu ne ko yonent bi dafa wax ne woon bu ma waxee seen tur Omar toog fa ba fajar jot di jooy pour lan waxuñu ko ndax turam a ngi ci wala nekku ci buy ñibbi day tuumaal boppam yow xam naa ci nga nekk ci nga bokk yow Omar ci nga bokk ndax sa càggante yow Omar wóoluwuma ndax bokkul ci Omar law kaana nabiyun baadi la kaana Omar Allah ki nga xam ne dafa gëm yàlla ba bu jaaree ci mbedd seytaane bu ko séenee day wiiri ndax imaan yi kooku di tuumaal boppam naan max mu am du naafiq ñun lan lañ ku nekk tegal sa baaraam sa dund xoolal yow yaay kan mbokk yi naafiq yi dañ daan julli di woor di joxe azak di jàng alxuraan di tudd yàlla waaye lan moo tax jëriñoo wuñ ko parce que ci kaw la yem duggul ci xol yi mbir mi foog mu yegg ci xol bi foog mu yegg ci xol bi moo tax yàlla bi mu wax ci quran alquran sootu baqara mooy deuxième saar sootu baqara juróomi aaya yi njëkk yi yàlla mbiru jullit ñi lay wax ñaareelu aaya aaya 6 aaya 7 inna allazina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunziruhum la yuminuun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishawa wa lahum azabun alim ñaari aaya yooyu ci yéeféer yi lay wax gis nga aaya yi ci des yëpp naafiq yi lay wax wa min annaasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil axir wa ma hum bi muminin allahu wa min annaas ay min baadi nnaas am na lenn ci nit ñi lenn bu ñëpp nag mais lenn ci biir jullit ñi dañ naan gëm nañ yàlla nit ñeme naa ñëw ne la gëm naa yàlla nga ni ko gëmoo yàlla julli jot nga gis ko ci jàkk yi nga gis ko mu jàng alxuraan muy ngénte woo imaam nga ni ko yow gëmoo yàlla mais yàlla moo xam li ci biir xol yi moo tax yàlla mu ne ñooñu gëmuñu wa maa hum bi mu'miniin gëmuñu ñu ne yàlla lu tax mu ne yuxaadi'uuna allaha walladina amanu wa maa yaxda'uuna illa anfusahum wa ma yashurun lu yàlla lu tax mu ne fii qulubihim marad shak wa nifaq fa zaadahum allahu maradan wa lahum adabun alim bima kaanu yaksibun yàlla nee na lu tax gëmuñu yàlla mooy seen xol yi la feebar nekk ñu ne yàlla ban feebar mu ne feebaru sikki sàkk ak feebaru naafiq di julli allah julli goo xam ne wala wala ñun li ñu nekkee tey kon ne yàlla nee na mu ne ah dimbali ñu ci àdduna la dimbali ñu de nag mu dimbali koo ne muurut mu ne dafa tàng mees mu ne xam safu la safu la ana iman ana islam léegi nag kooku bëgg laa taxaw suba ne la man gëm naa yàlla Hmm. yàlla mu ne wa maa hum bi muminin du dëgg gëmuñu ndax bu ñu gëmoon lii ñu ne maa ko tere dañ koy bàyyi lii ñu ne maa ko santaane dañ koy def gëmuñu du dëgg mbokk yi melokaanu naa fekk mooy kuy def mbir yi fekk li ngay def xam nga ne danga koy def nii rek mais yow sax gëmoo ko mais yaa ngi koy def pour ñu ne ci nga bokk lisa fadaahum allahu taala wa abda ma kaanu yaxfunahu moo tax yàlla gàccel leen feeñal lañ doon def wa sajjala alayhim nnifaaq linuxadira taqaalidahum yàlla mun a ñu mel ni ay naafiq lañ ngir lan ngir ñun ñu mën a moytandiku loolu balaa ñuy dugg ci mbirum cadre naafiq mooy kuy def lu mu gëmul yàlla leeral ñu ko pour ñu moytandiku balaa ñuy jaar yoon woowu la daloon ñee dallu xool Abdallah ibn Ubal buy salul ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba bi mu faatoo yonent moo ko sang misaal lay joxe sëñ Mansour si bu nit faatu woon tey sëñ Mansour jóge Tiwaawan ñëw ci gox bi ñu ne ana néew bi mu ne mu ngi ci morgue bi mu futteeku yëreem dugg sang ko jël yëre bi mu bi mu soloon sànge ko waa ji jullee ko ñu ne ana armeel yi mu ne mu ngi nii ñu yëkkati ko ñu dem ba foofu sëñ bi dugg ci biir pax bi ne jox leen ma ko ñu jox ko sëñ bi suul ko kooku lu ñuy yaakaar ci moom lu ñuy wax fii bu bu dee suñu mbokk la billaay texe na sama papa texe na sëñ bi ma yonent bi dafa def loolu lépp pare yàlla mu ne ko waa ji nga ko defal ma nga safara muhammad xayru xalqillah abdulaay bu nu bari du salul dafa faatu doom ñëw ci yonent bi ne ko dimbali ma yonent bi jóg omar ne ko doo dem mu ne man la yàlla yónni wala yow omar ne ko yow la yàlla yónni mu ne bàyyi ma dem mu ñëw ubbi morgue bi dugg sang waa ji doom ji ñëwaat ne ko yonent bi sa mbubb bi ngay jiitee jumaa bi mel nangam ak nangam mu ne waaw mu ne moom laa bëgg nga sànge sama papa yonent bi yónni Ali dama ngeen di yére bi Omar ne yére bi du ñëw mu ne Omar kan la yàlla yónni mu ne yow mu ne Omar yow Omar bàyyi ma ñu bàyyi yére bi ñëw yonent bi sànge ko waa ji teg ko ci kanamu jàkka ji jullee ko ñu pare yonent bi ànd ak gaa yi dem armeel ya ñu gas pax yi ba mu xool yonent bi dugg dugal waa ji suul ko jal suuf si ci kaw bëgg a ñaan yàlla yàlla mu ne ko boo ko ñaanalee boo ko ñaanaloon juróom-ñaar fukki yoon sax du ma ko baal te ku mel nii bu mu deewati ba nga taxaw ci bàmmeelam moo tax ñun dañuy fo rek leen jaamu yàlla waxtaan bi du mun a yàgg de ndax dangay ñibbi Dakar quatre heures ngeen lañ leen waxoon ngeen di nelaw ba six heures asalaamaaleykum wa rahmatullah
asalaamaaleykum wa rahmatullah ko defee rek li ñuy def mooy sant conférencier bi comme niñ ko waxee woon ak directeur d'école la imam la loolu feeñ na ci waxtaan wi ndax feeñ na ci ni moom ab pédagogue la ci ni muy misaale ak ni muy waxee xale yi kon jàngale dugg na foofu imaam ak it feeñ na ci waxtaan wi ci ni mu xamee nit ñi ni ñuy yore portable yi ci jàkka yi ak ni ñuy yàkkamteeg yooyu yëpp kon côté boobu itam feeñ na ci waxtaan wi li ci leneen liñ ciy wax moo di lépp lu mu fi wax am na ay source lu li nga xam ne mooy suñu problème ci waxtaan yu bari ci waxtaanu diine wax te teguwut fu mu war a tegu maanaam source ba wér mën nañu wax ni source yi lislaam yi nga xam ne mooy alquran ak sunna ak waxi borom xam-xam yi waxtaan yi tegu na ci foofu kon yàlla na ko yàlla fay aw yiw amin ya rabbal def alamin tànk yi muy tànki tuyaaba amin ya ñun rabbal ñi koy déglu itam ñu bañ a wax rek conférence bi neex na waaye mu bàyyi ci ñun ay jeexital yoo xam ne dinañu jariñ ba ñu gën a taxaw julli ak mboolem jaamu yàlla yi ca na ko suñu borom bëggee te feebar boobu mu tudde ni faax muy naafeex yàlla musal ñu ci te bokk na ci li koy saafara yéene ju sell lépp lu ñuy def ñu def ko ngir jëmmi suñu borom bi mu mel ni ci biir waxtaan wi al imam Malick Ndiaye ñëw na fi ak Cheikh Ibrahima Kane ñu ngi